internationale. abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu yëpp aju ci mi ak ci bitim réew. internet ñi xel ci sene info point net ak ñu ngi leen di nuyu fas yéene leen defal la tënkub xibaar tey mercredi di 22 juin 2022 ñu tàmbale kook xibaaru biir réew mi. démb ca université Cheikh Anta Diop bu Dakar ay xeexoo amoon na fa ci diggante ay étudiants yoo xam ne dañoo fare ci coalition Yewwi Askan Wi ak ñeneen ñoo xam ne dañoo fare ci lii di nguur gi li ko waral nag euh, moom mooy étudiants yooyu nga xam ne kon dañoo fare ci Yewwi Askan Wi ñoom ñoo fa doon amal concert de casserole muy loolu nga xam ne Ousmane Sonko woote na ko pour daal ñu jël ay ndab fëgg ko euh, ba euh, ñu yëg ne kon am na ñu leen naqari ñi nga xam ne nag ñoom ñooy étudiants yooyu dañ ne woon kon dañ ñuy jiital mbir mi tàmbali ko démb ci loolu nag kon euh, ci la ñu jàmmaarloo ñi nga xam ne ñoom ñooy ay étudiants yu mouvement des élèves et étudiants euh, républicains yi nga xam ne daal dañ ne woon loolu du fa amee ndax daf leen di euh, tànqal ca loolu nag kon ñu jot ca jote kon ba sax ay xeexoo am ca kon ba ñu ne am na ñoo xam ne am nañ ca ay gaañu gaañu. bésub tey bi la ñu waroon atte Déthié Fall ak maam Diarra Fam mi nga xam ne kon euh, dañ leen placé sous mandat de dépôt maanaam yóbbu leen kaso gannaaw bi ñu leen tegee loxo euh, ngir participation à une manifestation no autorisée provocation d'attroupement provocation d'un attroupement ak trouble à l'ordre public wante nag euh, procès ba dañ kaa mujjee dàq ba le 27 juin bii ñu dëgmal gannaaw Déthié Fall maam Diarra Fam ak Ahmed Aïdara mi nga xam ne kon euh, jotoon nañ leen yóbbu kaso euh, dëmb fële ca Ziguinchor kii di Guy Marius ak ñeneen ñoo xam ne it dañ doon euh, participer ci manifestation boobu nga xam ne dañ doon dañ koo tere woon ñoom it kii di procureur bu Ziguinchor kon placé na leen sous mandat de dépôt maanaam yóbbu na leen kaso ñoom it ñu war leen juger ci flagrant délit si bés yi ñuy jëm xibaaru Afrique benn ponk lay doon muy fële ci Abidjan di capitalu Côte d'Ivoire foofu nag ay taw yu métti ñoo fa am ba sax mbënd am fa ba lu toll si ñeent ci ay euh, xele ñàkk fa seen bakkan taw ya nag euh, mu ngi am ci guddi lundi jàpp euh, mardi ñoom daal ba ñu yeewoo daal dañoo gis seen kër ya fees ak ndox ba ba sax ñu bëri am nañ ci ay bagages yoo xam ne dañ ko yàqule wante li ca gën a tiis mooy ñeenti xele yooyu nga xam ne ñàkk nañ ca seen bakkan xibaaru bitim réew it benn ponk lay doon muy ca Afghanistan foofa nag ab séisme moo fa am maanaam suuf su yëngu wala boog tremblement de terre ba sax lu toll ci deux cent cinquante cinq personnes ñàkk fa seen bakkan foofa nag euh, mu ngi am ca euh, sud bu dëkk ba euh, bu ñu sukkandikoo nag ci nga xam ne moom mooy porte-parole adjoint bu gouvernement ba di Bilal Karimi nee na sax ca fa ñuy wax province bu euh, Paktita foofu rek lu toll ci euh, téeméeri nit yoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan jotoon nañ ko fa lim. mbir mu tiis moomu nag mu ngi am ca Afghanistan ci guddig mardi jàpp mercredi bii lii lañ leen loon tey ci xibaar d'Afrique seen teewlu di leen jox daje ëllëg jaa ngeen jëf.